ngeen bokk. lii nu bokk. lii ngeen bokk di ko wut. mënuñu ko ñàkk. mënuñu leen ko ñàkk mënuñu ko ñàkk. ñii di. nee na yow. gën na gën na may xel mu daal bu baax. alhamdulilah lool may xel mu daal lool ci loolu. li ci dooleeku nag teewlu. Mm. mooy teewlu. mënu gën a xam suñu bopp. Mm. ki nga xam ne moo ñu gën a xam suñu bopp. gën ñu ci suñu bopp. gën ñu ci suñu bopp. teewlu nag. teewlu nag. Mm-hmm. di ñaan ndoll mu tawfeex dina amoon dina amoon baax si baax si fii tawfeex jooju ñu ko dolleel faaw tawfeex jooju ñu dina ko dolleel faaw bu foofee fu mu ko mën a fekk mais loolu mooy yitte ji yitte yi nag bari nag li ci làmb bari na lool. waaye nag xam na ne xam moom moom moo xam na ne yitte jooju. da ci làmb lu mu bari bari. moom xam na ne moom mi day bëgg na nga wér. Mr. Sow. ak Mr. Ketton. di dox ni Amin